ay gaal ñun sàcc ñu fenn ñu état wutalu ñu liggéey soo gisee yenn saa nit ñi dañu jaay ay projet ñuy ànd ak ñoom ah lu mel nii moo tax. gannaaw bi nga xamee ni yëkkati nañ leen artisan yi ba léegi mënaguñoo jot seen i bagage maanaam fii dañ fi yor ay bagage comprendre nga moyatuñu sax ñu am accès depuis démb ba léegi. xam nga ñun ñu ngi naxanteeg ñoom pour ñu jéem a sax jege suñu place yi mais nanguwuñ ko sama grand bi mu doon waxtaanal ne moom ay ginaar lay jaay xam naa ne loolu yëpp da koy ñàkk commandant la bëgg a gis mais pour nga am accès sax si ñoom problème la quoi. artisan yi féete ci ancienne piste di ragal ñu yàqate seen i bagage wala sax ñu sàcc ko. l'essentiel bi mooy que instant yi affaire bi jaxasoo mais nañ ñu may ñu dugg jël suñu bagage parce que a des voleurs yu ne si biir man maa boîte bi ma jënd barki dem 1 million 500 mu ngi ci biir ak samay papier yi nga xamante ne terrain ba wax ne fa lañ jox mu ngi ci biir parce que tamit fii ñun ay sénégalais lañ fi la ñu dëkk te dañ fay nekk fii di daan doole di faj suñuy soxla di teral suñuy waajur bu ñu sukkandikoo ci ñoom ay millions yu bëri la ñu nar a ñàkk bagage yi fi nekk man mii di wax ak yow man seer am naa fi 6 millions yoo xam ne ñu ngi ci biir génnewuma dara lam doo dugg kon loolu itam te man maa fi gën a ndawle 2000 tonnes mu ngi ci biir kilo bu ne ñu ngi koy jaay 190 kon loolu xaalis bu bëri la ku mën a calculer calculer ko 2000 tonnes assuré naa mu ngi ci biir sama place 20 tonnes mu ngi foofu. ci lu soxal site de recasement ba nekk ci Diamniadio yi la artisan jàpp ni ay naxi mbaay kese la. site bu nekk xot ñaajo mais site ba bañ fa demee ñoom ñu ne defar nañ fa lépp defuñu fa tous dara defuñu ko fa. foofu ay ban ñoo fa nekk foofu bu tawee gan moo fay dugg. te foofu am na ñu taxaw ni fii ñun suñuy terrain lan waa jam ñaajo am na ñu taxaw ak sebiku daan ni fii ñu ngi leen koy jox mais suñu ay terrain lañ leen di jox loolu am la du dëgg waaye dama ne kenn mooy paane fii Ndakaaru di dem jam ñaajo rax ci dolli dafa am ay njuuj njaaj yu ñu nemmeeku ci recensement yi. am na ñoo xam mooy paa yi ma la limal ñoom ñoo jël jox fii si jox ñu leen neex seeni njaboot ya nekk dëkk ba ca àll ba dañ leen di bind recensé leen ñu ñëw di fayeeku te ñi fiy liggéeyee kenn fayeekuwul. altine bi mooy ñaareelu fan opération déguerpissement bu ancienne piste bi waaye ba fi mu nekk artisan yi mënaguñoo jot seeni i ndaxte takk der yi dañ leen a tere yegg ci site ba.